xam lax man la për ka naa booy jël naa booy billaay wallaay naa booy jël maa jaat lam sar naa booy billaay wallaay dañoo dañ baba naa booy jël maa lay ziar gaynde sant yàlla bu baax waa sant yàlla rek lamsaar mbër yu ndaw yëpp seen premier combat lañ leen daan wala seen deuxième combat lamsaar mbër yu ndaw yëpp ay victoire lañ toog déglul baax li ma lay wax xam-xam lamsaar mbër yu ndaw yi nekk lamsaar yëpp ci ay neuf victoire lañ toog dix victoire te mbër buñ ne mbëru lamsaar ngay teggi booy ay man waxuma sax ci combat bi man xam naa ne kii arbitre ko bàyyi si lamb si si géew bi loolu moom waxatuma ko parce que man contact naa petit Tigre junior xam naa li ne ci moom te xam naa ne bu ko jàppee laa ilaha illallah ma passé loolu ma ñëw ci sama bopp man ku ma ku ma jëlul ku ma jëlul daf maa ragal champion la ku ma jëlul da nga maa ragal kéwél su ma jëlul daf maa ragal ñaabu ndaw su ma jëlul daf maa ragal ndax baaku ñaabu ndaw baaku boof laa ko daan 30 secondes baaku boof lañ daje moo kii ñoo àndoon mu Ndiaye Diofior ëbbali 30 secondes laa ko daan ñaabu ndaw su ma jëlul daf maa ragal Mor Kankang uh-huh. dafa bëre paa boobu noonu dëkk Tëngéej daan ko ma bëre caatu jokkaan daan ko su ma jëlul daf maa ragal yaa ngi dégg bàyyiwu ma fi kenn booy maanaam man dafa jot ma lekk ci xaalis si làmb ji lépp nag di ko sante sama yaay ndax ñun dañoo teel a ñàkk papa des ak suñu yaay war koo teral di ñaanal suñu papa yi nag yàlla yërëm leen ak Tigre junior mi may ñaanal papaam yàlla yërëm ko xaare ko àjjana tey jii nii ñun dañoo war a am ci làmb loo xam ne dañoo war a teral suñu waajur parce que dafa am booy yu topp suñ ginnaaw yoo xam ne dañuy bàyyi xel booy yi nekk suñ ginnaaw dañuy roy si ñun ñun bu ñu ñëw esat dañuy sangu ba set sol lu rafet xeeñ lu neex suñuy boo yi ñuy àndal noonu la ñu mel. keroog dama doon wax benn wax ma ne honte tenue yi ngallaawaay nañ bàyyi di tooñ xale yi xale yi bu ñu sañsee jëm si stade lamb lekk leen ñor. ñëwuñu pour tooñ. ñëwuñu pour sàcc ñëwuñu pour def leneen. kon booy yi bu ñu ñëwee jëm si stade bu ñu leen sonal nañ leen bàyyi ak seen teeyu bakkan ndax ñun ak homme de tenue yi bu ñoom bu ñu wàccee dañuy simmeeku def ko ci saag yéeg ci tataay di buuxanteeg ñun te bu ñu ñibbisee kër ga ñooy bokkandoo reer bu ñu yeewoo dañuy sangu abal ñu ñu dugg ci duus bi sangu kon lii message la bu may lancé homme de yi ñu xam ne ñu nag booy yi ñoom ñoo far homme de yi ak supporters yi ñoo far ñoo mën a mayante xaalis homme supporters yi dañuy dagg ticket ticket yooyu ñuy dagg moom la ñuy fay de tenue yi wallaahi laazim xam nga sa lax sa lax dafa war a jeex